Serigne Mbacke Faye coordonnateur COJER communal de Mbacke. lan moo nekkoon euh, sababu tey euh, daje bi. waaw daje bi suñu kilifa di suñu responsable bu moo ñu comme ni nga ko doon defee chaque rek moo ñu yabaloon ci kilifa yi ñu jox leen suñu ziar ci koor gi maanaam ay denrée mën ko tuddee ay sukkuru koor moo waxoon ni nañu ñëw ci kilifa yi jotale ko ziaram. ci sëriñ si parce que xam nañ ne sëriñ si période ramadan bi dañ leen sollicité population bi dañ leen sollicité comme ni ñu ko defee chaque année rek mu leen di jàppale si profité tamit tàllal suñu loxo ñu ñaanal ñu euh, ba suñu borom bu ne ñu mën a def lu raw lii ak responsabilité yi nga xam ne président dénk na ko ko ñu mën cee def ay résultats yu kaw njottam. Mmh. mën nañu estimer valeur bi ñaata la. waaw euh, xam nga ay kilifa dañuy seet si valeur bi daal du lu ñuy lim waaye euh, maanaam lim bi euh, toll na noo xam ne ni par rapport ak euh, daaw am na soppite am na coppite bu rëy rëy loolu nag ci seen ndimbal la sëriñ si parce que daaw ñaanal nañu la ñu waxoon tamit gis nañ ko yokkute am na. ñu wax ci actualité politique Karim Wade ñu libéré ko ki nga xam ne moom mooy Idriss jàpp ne dil la Cojer bu Mbàkke yéen lan moo ci seen xalaat ci wax jooju. waa d' abord ñun lu ñu def loolu di soutenir le président Macky Sall parce que tamit bu ñu fàtte nii grâce day loo xam ne constitution bi daf ko permettre président de la république Karim Wade purgé na la moitié de sa peine ñu doon ko 6 ans mu tudd 3 ans comme war na mën a bénéficier grâce comme tout le monde comme 7000 et quelques personnes yu président gracié depuis 2012 leneen li si am di wax nag dama jàpp ni ñàkk respecte sénégalais yi la. may profité ci occasion du fustiger comportement ak déclaration Y'en a marre ak Idrissa parce que waa Y'en bu ñu demee ba wax ni képp koo xam ne demandé nga libération euh, Karim Wade sàcc nga loolu dama jàpp ne c'est des propos yoo xam ne yu yu tegginewul la ñu ne du ñu bett parce que ci ci ñi jugee ñoo xam ne ñi kenn yaru leen parce que bu ñu ba tuddoo Y'en a marre ne nouveau type de sénégalais loo xam ne Serigne Touba bàyyi nañu fii ay valeur Alaaji Malick bàyyi ñu fi ay valeur ñoom ñu ne dañuy former Sénégalais yi eh, loolu ñuy wax nag na ko Séné yëpp di déplorer la parce que tey bu ñu fàtte ne libération Karim Wade sëriñ si kilifa diine yi muy xalif yëpp de Touba en pensant à Tivaouane et l'ensemble des xalif yëpp demande nañ pour ñu libérer Karim Wade kon bu dee bu ñu wëbbatikoo di wax ne loolu ku képp ku demande libération Karim Wade ay sàcc ngeen. loolu ma bëgg Sénégalais yu jugé loolu ñooñu c'est pas ils ne sont pas des modèles et ñun xam nañ ko Idriss Seck li mu wax nag tamit xam nga gémm gu nàcc mu dox jàmm moom il est mal placé pour joxe ay leçons à personne parce que ñu ngi rappelé wu euh, chantier Thiès yi ni mu demee woon fàtte guñ ko mun ta ñëw fii dañ doon donneur de leçon tey li kilifa yi wax mu dégg ne sëñ Sidi Mokhtar mu ngi ciy dox pour ñu libérer Karim Wade tey bu ñu ko libéré boo waxee ni dil la man damaa jàpp moom moo xam dil mais ku xam président Macky Sall xam ne nitu dëgg la nitu valeur la du kuy def combine du yi def dil bon libération Karim Wade nag neexu ko parce que day chamboulé maanaam yaakaar gi mu amul ci politique. dañ koy comprendre mais il faut que ñu nañu respecté suñu kilifa yi bu ñuy respecté population nañu respecté kilifa yi nga xam ne ni ñoo demandé libération boobu.